defe naa ne yéen ah, fu ngeen mën nekk rek bëgg nañ leen ziar leen comme ni ñu ko defaloon nag Lamine Olof a ko wax ku fóotal mbët. kon nag. Franc ma xamul bar. Franc war naa xam bar de xanaa dëkkul ci réew mi. amul bar kon loo ci mën a dégg daal. koroke la xam xam koroke la xam. wa moom daal mu ngi ni xam na fa mu nekkoon nag fa mu demoon amuti bar waaye yegsi na Sénégal fii mu am na ay bar Franc ñu ngi lay bëgg di lay ziar di la wax nga dal ak jàmm fii ci Sénégal. waaw Babacar merci beaucoup. Hmm. waa di leen ziar yéen ñëpp presse yëpp maa ngi Lamine sil sil boobu waaw demal waaw voilà acca di ziar presse bi yëpp mm-hmm. xam di ziar sama gars yi nga xam ne ma jël si mm-hmm. xam di santaat yàlla bu baax a baax mm-hmm. parce que damaa voyagé woon dem naa ñëw naa ñëw naa ci jàmm damay sant yàlla pare sant Yesu Christa bu baax a baax sant suma yaay sant suma papa sant ñëpp sant rawatina suma gars yi ñi ma jël si aussi ak fi ma jugee woon fi ma jugee xam nga di nuyu waa France bu baax baax ku ci mel ni suma grande sœur mm. Aimé ak séeréem jëkkëram Zak. Mm. xam nga aussi tamit ku ci mel ni sama turandoo. Mm. Fara na njaafu bu mag bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. aussi ku ci mel ñoom Boy Pula. Mm-hmm. ñoom Issa. Mm-hmm. ak Alain. Alain maa ngi koy ziar bu baax a baax. ak grand Sylvestre Gomis. coach su Japon. bu ma jegee France damay dem Belgique. mooy fi ma nekkoon. xam nga ku ci waa Mons. maa ngi ne woon Belgique. Mons waaw. ok benn quartier bu ñuy naan Mons quoi. waaw si ok maa ngi fa daloon suma grand bu ñuy wax xalifa mhm. Sankare. Mhm. xam ma mhm. ak euh, Séré Maam Kumba. Franc yokkal sa kàddu ak Maam Kumba ak ñoom ami seen doom yi ami ak Adja. maa ngi leen nuyu bu baax a baax aussi tam du nuyu sama benn euh, copain bu ne foofu muy Moustapha champion la. muy ci MMA bi xam nga. waaw dafa war a fayat suba. demee waaw maa ngi koy ñaan yàlla may ko ndam quoi. Mhm. am na solo mu mel ni Franc defe naa ne sa combat dafa taxaw ak Sokh quelques jours nga voyagé ñi ne Belgique nga dem ñi ne France mais daa mel ni yow ni nga limbe dafa mel ni entre Belgique France nga nekkoon sa adversaire moom Maroc la demoon yow nga taamu dem Europe moom mu taamu des fii Afrique ci Maghreb bi lan moo tax soit Europe bi pour yow. waaw parce que man en fait dama am ay kilifa man ñoom laay déglu parce que liggéey da koy jox cër bu la waxee defal lii nga def lee bu la waxee defal lee mhm. moo tax sama affaire ba mu jotee nag suma staff ne ma da nga war a génn nga voyager nga dem entraînement ji. Mhm. comprendre nga. Mhm. aussi tam di nuyu staffu jàmbaar. écrit jàmbaar. waa jàmbaar wrestling académie maa bu a baax. comprendre ak sama coach yu fa nekk maa ngi lay nuyu. aussi itam di nuyu sama benn bu nekk Espagne muy Alouan. Seri Sadia. borom Granada maa ngi koy nuyu bu baax baax. Aliou Alassane Diouf. mais soit Europe bi. fee kaaw bi dama am dama am ay kii dama am staff Babacar ñoom ñoo ma ne génnal man am naa visa États-Unis am naa yeneen ak yeneen comprendre nga mais ñoom ñoo ma nga dem aussi sama grand Khalifa Sankare ñu waxtaan mhm. mu ne ma ñëwal tout est ok ñëwal ñu liggéey nga def ci nu mu waree nga concentré wu après nga ñibbiwaat quoi. Mhm. Belgique ak France fan nga ci nekkoon parce que dégg nañ la France dégg Belgique fan nga préparé combat waaw bu ma ñëwee jaar na France laa ne woon jaar na Espagne la njëkk sax après ma jaar Espagne tourné à demaat France nekk fa ak coach Jabon ak ñoom Boy Poul ñoom Issa xam nga jugaat foofu après ci laa terminé Belgique quoi. Mm-hmm. fu ci rek dafa am liggéey boo fa doon liggéey. waaw waaw waaw exact Hmm. moom kera bi mu dikkee ñu laaj ko ci côté liggéey bi li tax mu taamu Maroc moom wax na ko. moom ne na Maroc moo ëpp sax ay din Sénégal. ça veut dire que kon moom din yi nekk Maroc intéressé woon na ko ci wàllum liggéey ci tànkam ci dooleem ak léppam. Hmm. yow bi nga demee fee sa liggéey ci lan nga ko gënoon privilégié. Eh, sportif da koy def wala soit athlète da koy def hmm? wala soit. kon li ci préparé wu xam. amoon ay coach yu baax nag yu bien comprendre nga. moo tax man fu mu toll nii moom. le 19 rek laay xaar quoi. le 19 ngay xaar. waaw. <laughs> adversaire bi keroog bi mu wàccee fii nee seen diggante du neex day métti. ndax xam na la depuis xale. ca unité set parcelle xamante ngeen bu baax. combat bi ardo dina ci am dem dellu si aller retour. Mm. gaañu naaj. te moom loolu la ci bëgg te nan loolu mënoo ko cee moytu yow. wa moom lu mu wax dëgg la nee xam na ma parce que ba may nekk tout tànk mag raxam ñu doon ànd. moom mu raxam. Ah. waaw raxam boobu ñu bëri. voilà ñu doon ànd. comme man tout tànk laa comprendre nga. Mhm. léegi nag nee na lan beneen bi bu ñu si topp. waaw maanaam da di xel di dem ardo. di dem ardo di ñëw di di maanaam faj. man baa xeex. man du ma dem moom ay ardo ñu may yab. ah non non. Ah. dafa am lu ma waxoon dafa lu ma waxoon ko keroog. ci direct bi du xam lu ma ko waxoon. 30 secondes laa koy may. 30 secondes bu ma ko bu ma taxawee gisuma ko ma dox ci kawam ci 30 secondes ma wàccee ko dem sama yoon. nga ne ma répété li nga waxoon. ma ne dama am lu ma waxoon keroog ci direct bi. dama ko ne 30 secondes laa lay may. waaw 30 bu ñëwul. ma dox ci kawam wàccee ko ci 30 secondes muy ñaata. 30 secondes bu ñëwul bu une minute daal. jeex na. xanaa yow xalaat nga war nga mën a dox ci kaw sox une minute wàcce ko. ah Babacar. Babacar nañ bàyyi ba le 19. yow lan nga lan nga ëppale soq lan nga ko dàq ma jàpp ne yow ci indi war nga ko ci mën taxañ. waaw dama xam sama bopp rek xam man maay kan quoi comprendre nga xam nga nit lu mu la gën a xam nga gën ko xam sa bopp. Mhm. man xam naa suma bopp xam naa maay kan. Mhm. ndax moom xam nga ko ak lim ma ne. si xam naa ko seetaan naa ko seetaan naa ne ko comprendre nga. waay. <laughs> am na leen loo xam ne seetlu naa ko ci parce que moom kera fii yaakaar naa Lamine wax na fi kera kan ñoom muy Eumeu Sène muy booy Niang muy Ama Baldé ñoom ñëpp benn bloc la ñu nekk. nekk autour de moom. ok ngir fas yéenee ñëw. kon ça veut que kon. pousser ko vers la waaw pousser ko ngir mu am nam sa kaw. waaw mais ñoom bu ñu defee loolu loolu war lañ def mais man damaa yóbbu Modou Lo Modou jàpp Eumeu Sène duma ko Tyson 2 ñëw Eumeu seen indi ko ma jàpp ko duma ko xamal lu ma leen xamal ñooñu. nañu fa nañu am ngor am ngor boo kii su ma ko wàccee ñoom nañ ñëw. est-ce que dumante wu ngeen Ama Baldé itam am na lu mu def fee de. <laughs> waaw am na lu mu fa def. Ah, ah, defante la de. waaw defante la. waaw léegi kan moo mujjee seen kaw. Ah, yow laa koy laaj yow kay yaay wax ki mujj. non non yow xoolal affaire yi rek boo xoolee di ne. ñun ñoo fa mujjee wala ñu mujj si mujjee. ñoo la mooy mujjee ba mooy bëreeg kii Tyson 2. ku ko indi. moo ko indi. soq indi na ko. ñoom ñëpp ñu ngi yoon ci ginnaawam comprendre nga. ak bon jour sax. open press kii Tyson 2. kii mu yoon fa soq. di ko poussé waaw léegi après soq moo ñëw. léegi ñooñu nañ ko defaatee noonu rek amul problème. da ngaa bëgg daal kon loolu rek da loolu daf mooy joie. Hmm. Hmm. nga gestu gis Eumeu Sène gis Ama gis Boy Niang ci ginnaaw. nañ ñëw bu ñu bu pare bu kii ñoom nañ am ngor taxaw takk ngemb rek jàkkaarloog man. waa Pikine ngay bu combat bi jeexee ñoom nañu am ngor. am ngor laa wax takk ngemb jàmmarloog man. lancé nga waa Pikine défi de. Ah. de Lamine ah. wuyul Ousseyn. Oh. bala 19 ak jàmm rek incha allah moom nag na du mbër bu ñuy daan ci ay na xam naa li nga bañ mooy cause bi te di ngeen kii yow Sénégal ñëpp apprécier sa ak ñeneen ñu fi nekk ñëpp. Mhm. mais tey su ma neexee man man Lamine laay seetaan ku ci mën dara. waaw noonu laa jëf ak moom rek hmm. une minute doo ko wàcc. <laughs> ba arbitre siffle incha allah. Ouzin loo ko bëgg a laaj. Euh, dama dégg soq ne ko. Mhm. Euh, dafa waxoon ci vingt secondes lay bëre ak soq. mu dem ñu ne ko non ci ay minutes. Mhm. trente minutes. Mhm. mu dem ay mbokkam ne ko loolu dafa bëri. nee na ne na ko moom dafa am staff. te nee na soq li soq nee li franc de bëre dafa yomb. li bi jéeg lay def day toog ci ay tànkam. teg bopp di buuxante. te lu lu yomb moom amul ci diggante moom moom nee na bi bëgg. dafa bëgg ñoom ñoo non man képp ku ma xam képp ku ma xam xam ne man bëgguma lu yomb ñàkk bëgg lu yomb moo tax sama ngemb chaque samedi ak dimanche ma koy jël di ko takk comme damay buuxante. Hmm. na wàcc. Hmm. na na wàcc yoon foofu na fa wàcc nga ci mbapat bi ah na fa wàcc ñun dañuy mbapat di def bëri dóor lutte avec frappe. di def di ngeen buuxante wala da ngeen xeex. man man du man du man du ma ko def du foofu di buuxante moom. damay tax damay taxaw jàmmaar la moom li ma ko waxoon loolu laa koy def. ba na mënul bëre. waaw amul problème bu waxee loolu mënul bëre am na gars yu jugé am na ñuy seetaan. Mhm. dégg naa ko sax a dàq bëre mais yooyu yëpp anyway amul problème. d'accord ci waaw waaw amul problème yëpp mën nañu koo nangul. Mhm. mais nañu xool samay combat xool ay combat mhm. ban moo ci gën a xaat ban moo ci gën a wane yëfu kan moo ci gën a wane yëfu jàmbaar. soq bëri na combat yu métti defara waaw même bu bëree yu métti xoolal samay bos man teg damay teg jeexal. damay man mbayaar kër yëpp man la ñu àndal di leen woo ñoom ñëpp di leen wax xolal ñëw leen leen indi leen ngeen ñëw ngeen teg. Ah. teg combat bi loolu lu yor na ko génnee. maanaam teg xaalis nii ku mu neex. lépp lu waay yor daal na ko génnee kër sax. ñu teg ko ci yow. waaw. man mag moom sekkuñu ay teg xam lu ñu sekk mag moom. ma jàpp ko duma ko daan ko. moom ñu muy ñu muy ñu muy ñuy teg. Hmm. ñu ngi si ginnaaw. maag moom ñooy wàcc ci géew bi ah, Babacar lamb ñii lu ñu ma gunge gunge ci géew bi ci fee la ñuy taxaw duñ dugg ci géew bi waaw mhm. <laughs> tey boo Lamine boo fekkonte ne tey Franc ah, am na kaddu gumu xam ne moom lay mujj a yónnee mhm. ak di ko yónnee ay supporter ak supporteru soq. waaw ah, parce que waa Pikine dañ ko ko fàtte lañ ko amaa ko yóbbu ko Dini Mboro Lamine ma wax la maa ngi parcelle. waaw comme accident ci jàmm maa ngi parcelle. ak sama ak sama waa koñ. waa koñu Ndiago waa parcelle Assainies bi yëpp waa Cambérène nag déggoo ak Grand Yoff xam nga na njaaf yi fa ne njaago yi fa ne ñun ñëpp xam nga maa leen woo ci combat bi ak waa Joal Fadiouth ku ci mel ni sama grand Edou Edouard Dimle xam nga ak Dadi ñoom Jean Ñilaan Modou Jox Paul Sène gars yëpp xam nga bu ma limee damay juum waa Njong yëpp nañ ñëw jàpp ci affaire bi ñu jàpp waa ji defal ko bagage. dem mais doole yak Franc ku doole. yaa soog bopp lef doole. non da ngay bàyyi bu ñu bëree pare bu ñu bëree pare nga ne ah waxul lii gën a xam. mais indi bi mu wàccee fii. man lay bëral nag. Ah. mais looloo ci baax. a pare ah dafa war a pare bu parewul nag lu ko gaa yi di wax la. liggéey na ne ko booy bi mooy loolu yaa ma gën a xam moo tax instant bu tëddee sax nelaw yi du doy day jug dem teg ko ci. Ah. mais na def nànk rek côté mobilisation bi tamit naa la ci laaj parce que mbooloo i ñu ngi ko fay xaar te moom combat bii passé moo gàmmu géey keroog ku ne gis na soq ni mu def arène nationale ah, bi yoon tamit ba suma président écrit mu jàpp ci affaire yi baax a baax comprendre nga di woo grand cheikh di baax waaw borom unité 10 maa koy woo bu baax a baax mu jàpp ci grand Daniel Gomis sama basketteur bi ca États-Unis xam nga maa ngi koy wax aussi tam mu jàpp ci André Senghor. Père musa Fall waaw borom Belgique vraiment kontaan naa ci moom Belgique la ma fekk defal may teraanga mu ngi Sénégal fu mu toll nii père bi de la wax maa ñëw. xam nga di nuyu aussi tam ñoom Mandaw Mandaw ma Marème policier bi waaw policier yëpp maa ngi leen di leen bigga ah. ba ak dabaax xam nga yaa ma gën a xam borom aéroport ak tam bu ñu ànd waaw mais c'est normal xam nga c'est normal Babacar waaw waaw c'est normal Lum Ndiaye aussi tam maa koy woo ci combat bi ah. Lum Lum Ndiaye benn international. moog waaw waaw lu maa koy woo aussi tamit ci combat bi moog doom ndayam deev maa ngi leen di woo. aussi tam Babacar dafa am fu ma doon commencé. muy dama am lu ma fi bàyyi. Ah, muy lu métti nag tiis bu métti. ah bien sûr waaw muy Moussa Dioum. muy suñu grand. Mhm. waa parcelle jànq rawatina waa Intercept waa Intercept dañoo ñàkk seen trois doom. même pas un mois. ku ci mel ni Moussa Dioum ñu koy ñaanal xam nga yàlla yërëm ko te jéggal ko ak coach Atap moo yoroon suñu ay see bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xam nga ak Basir Cissé moom ba ma demee noonu dama àgg rek lan demee ñu ne dafa gaañu. Oh. affaire yi doon lu métti mais su borom nag moom moo fi ne. Mm-hmm. moom mooy dogal kenn mënu ci dara. lu suñu borom wax kenn mënu ci dara. Mm-hmm. ñu gën a jàppante xam nga ñaanal leen yàlla yàlla yërëm leen te xaar leen àjjana mm-hmm. waaw. waaw Babacar may wax la presse ak tamit seen coono bi ñuy daj ñoom itam xam nga. depuis 14h xaw ma 13h ñu ngi fi a ah. mais Babacar ñu bàyyi leen. waaw des fois nag ñu mooy loolu. Babacar liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey nii la. waaw dëgg liggéey liggéey mënut yomb. déedéet Babacar. Ah. xam nga nit dañu naan saay boo tukkee rek di nga am loo jàng. dëgg man dafa am loo leen loo xam dama ko fa jàng. Ah, maanaam àdduna nee nañ lépp lu waay am rek moo ko mérito soit mu nekk ci leneen ak ak leneen ak leneen comme tey yéen boo leen liggéey mm-hmm. ba ni toll fe feneen ak feneen di leen encouragé mm-hmm. comme loolu yéen a ko liggéey mm-hmm. di leen wax ngeen gën a góorgóorlu aussi di leen baalu àq dëgg la xam nga ngeen fii mais lépp ci waar bi la di leen bëgge baax di aussi di bëgge sama waa koña waa parcelle unité 7 waa parcelle asini bi yëpp maa leen nuyu ñëpp ñëpp di leen wax combat bi ñëpp dama bëgg gis seen mobilisation ngeen ne sama ginnaaw parce que ñun daa fu ñu war dem ci làmb nekkatul ay wax nag ay jëf la liggéey waaw di leen woo yéen ñëpp di nuyu mbaru Parcelles Assainies yëpp bàyyi ma kenn ñoom ñëpp maa nuyu roi bi ba ku nekk ba suuf suuf di leen nuyu bu baax di leen ziar aussi di nuyu tamit Mansour Ba xam nga di nuyu sama ñoo ku si mel ni ñoom Mara Anne Mara Sëñ Saliou ñoom Matar Lo waa dooleel franc bi ak sama président fans club Laye Ndiaye ak ñoom Jo ñoom Kaka ñoom du sama frère yëpp maa leen nuyu waaw di bëggee ñëpp daal Babacar di ñaan yàlla na jàmm ci réew mi. merci beaucoup jaajëf kontaan aussi ah maa leen ziar bu baax a